خرجت يوم شبتي ثامن عشر لخدمة المختار في شهر شبر ndax xew-xew bi di xew-xew bu rëy di xew-xewu diine boo xam ne ndamul lislaam la ndamul lislaam la ndamul yoonu murid la ndamul sëriñ Tuubaa la ndamul képp ku eh, dëgg neex képp ku sopp dëgg la ay alxuraan ja waxoon nag xul jaa alxaq wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqan mën naa nekk rams màggal gi te Mbàkke bari ni ngeen ko xamee wàccuwaayu màggalu Tuubaa la am màggalu Tuubaa dañ ko jàpp ci weeru shahr ashhurul hijriya shahr hijriya mooy safar mbaki bari ñu jàpp ko ci weeru tubaab bi di 10 août waaye benn date bee tax kon génn màggal gee te sëñ bi xuruj bi lay lay màggal génn gi waaw génn gi mu génn dem dem tabbi ci liggéey bi te Mbàkke bari googu la la déparé matériellement kon xëy na kon day mel ne bii dañ ko jàpp ci weeru hijri muy weeru li ñuy wax weeru wolof muy weeru lislaam mooy di fukki fan ak juróom safar bii ñu jàpp ko ci fukki fan ak ci weeru août waaye benn date bee kon Mbàkke Bari mën ngay wax ne Seexu Mbàkke Magalu Tuubaa la wenn wàccuwaay la am muy muy wàccuwaay rëy rëy gis ngeen li Sëñ Tuubaa wax lépp ndax wax mënta rëy ba weesu ne lu mu am ci bis bi la ko am lu mu am te lu mu am lu mu ci am lu ne saa bis bi dellu see day yokk waaw nettali naa ba tàyyi ne kenn ci waa kër Sëñ Tuubaa na mu ne bis boobu dafa rëy ci moom ba pay gi dafay day fulandi ba bu ñu demee ba nga xam ne amul sax ay bis ki weer ki at saa bu bi agsee xéew yokk ba ñëpp yëg ne xéewal yokk na koy bu ñu laajee lu xew tey di dafa mel ne xéewal daana bari waaye tey la ëpp ñu koo xam ne sa mbég na sama mbég la wala kon bu agsee nag ma ci defal nag ci sant la yàlla te ci lañu ma si dee gërëm sëñ Tuubaa sant sàkku ndimbal ko yàlla fi mu jaar bi yëpp kenn ma sa dégg mu ne oh nettali na ko moom ci làmmiñ nañ bi mu dee ba ñëw wax na ma am cerno radiyallahu anhu ba ñu gisee ca ndar ne ko Ibrahima war ngeen sant yàlla ndax dem nañ ba dellu si day noon bi lu ne jéem na ko waaye neewu na u te mësta sàkku ci yàlla kenn ndimbal waaye bi ba loolu lépp jàll nag ba mu am la ma am ba am gañaayal ba am victoire ma la mu bëggul lépp ci yàlla mu at yu ci natt yu metti ca eh, Gabon ya xewoon ca Mauritanie ya xewoon ca Thiéyène ya ci njaareem ba yàlla fay ko ko li ma la defal saa ba dat bi ak day yokk di fulandi nekk réew ndax bis bi natt bi tàmbalee woon ci la ci bi jeexee kon màggal gi wàccuwaay bu rëy rëy la wàccuwaay bu màggalu Tuubaa am rek màggalu Mbàkke Bari am na ko ndax benn dat be benn ndigal lee ci kenn ki la jógee benn xew-xew bi la ndax bisu sëñ Tuubaa boo xam loo ci def ci lu baax rek sëñ Tuubaa koy defal te te te màggal ko ñëpp la war ndax ndax ndamul lislaam la bis bi ndamul lislaam la ndax euh, sëñ Tuubaa rek li ma sa gis ci histoire coloniale Tuubaa bi seppi ko ne ko li ngi li nga fi waxee doo ko fi waxee ñu seppi ko yóbbu mu dellu si di dundu di dund góor gu baax ku mën a ku mën a seetlu tekki ne di dundu amut amutub liggéey sooxut amutub liggéey bay la lam doon wax tubaab bi ku ma sa coppati yóbbu rek kenn waxtu see wax dootoo dellu si wala bu ñu dellu si dañ lay fekk fu ñu ko def ka jël ay yax def ci kees ñëw naan ñoo ngi koy màgg rek ñoo ngi koy defal ñoo ngi koy defal laa waaye dellu si di dund wala nga doon wax suñu tubaab lañ ko mas a gisee te nee na noon bi lu ne jéem na ko néew na u ah, waaw lu ne lu ne jéem na ko néew na u ci ay at yu bare bare bare jéem goo xam ne damay wax ne eh, xeeti jéemin yu ne def nañ ko ngir faagaagal ko jëm nañoo faagaagal jëmm ji jëm nañu ko faagaagal moralement jëm nañu ko faagaagal socialement loolu ci gàttal mooy rek jëmm ji moom ca Gabon lañ ko bëggoon a faagaagale ndax xam ne bi ñu ko coppati fi yóbbu Gabon ak condition yam nekkee woon nga xam ne ci gàttal am na lu mat juróomi at yoo xam ne ci kenn garab la ko nekk ci ku dëkk Sahel bi nga xam daanaka ab dégg bu sax amu fi ak Gabon nam bëree ab ab taw ak dex yaag gottu yaag yay matteeg yay dox ak yëpp ak xew yëpp te la nga xam ngeen lu ma juróom-ñetti at tubaay bi lu ne jéem na ko kooku sëñ tubaay ki mos moo ci moo ci mos a mos a mucc mucc lu mat juróom-ñetti at waaw sama ne ba tubaay tubaay bi jéemee nag physiquement suul nañ ko fetal nañ ko sànni nañ ko ci géej lu ne def nañ ko loolu dégg ngeen ko ba tàyyi moom joroon ci insisté eh, bañ demee ba tëlli nag boobu am na jamono suñu bëgg koy waaye mooy leen sama liggéey àggagut waaye mu ne ba liggéey ba agsi ba àgg mu dellusi si ñoo xam ne kon échec nañ ci lii ci di jëmm ji ndax lii ci di jëmm kenn mënu caa weesu fetal suul sànni ci géej euh, di marmaral di mattu ak ak ak boole ko ay jaan ak boole gayndeeg lu ñu boole ko moom foofa def ko defal ko poisson itam ci café lu ñu def ko ngir bëgg ko liki liki di jëmm ji bañ échec ja loolu nag bu ñu ñëwee fii lañ nañ ko yóbbu gànnaar ndax gannaaw mooy day wax ne xaadimu rasul bu yi dana complexé ñoom ay chorofa lañ boole dana dana seeyik seen biir mu dem yëf yi gën a yokkoo foofa pay ga ñooy foofa wirdu ko ba barki démb lañu màggal sarsara ak la fa xew la fa jëblu ci ay gàdd kenn xamu nañu toll ak la fa war a ciy kéemaan waaw moo tax benn mbokk di wax ne sëñ Tuubaa dafa am yu mucc yoo xam kenn fekk ko ca sëñ Tuubaa rek mucc ci xamal bi ci tubaab bi ak ak ak ak ak dinget bi ci gànnaar ak jay bi ci kajoor sëñ Tuubaa rek ci mucc ñooñu ku ñu mës a ku ñu mës a dëgmal rek dara dal na ci nërmeel tubaab bi ku ñu mës a xëbal dañ la nërmeel am na jamono yoo xam ne ay nit ngi fii ñoo xam ne dajeeg tubaab ci mbedd rek ñemewuñ ko bu ñuy dem ci mbedd te tubaab dañuy daw làqatu wala ñu daw nëbbatu ba mu jàll waxuma la nag affronté ko nag waxuma la nag mu coppati la di yóbbu juróom dara gànnaar googu bi mu demee dingat nañ ko façon diina bu ne ci wilaaya xam-xam ak baati nag lu ne def nañ ko xam naa ne gànnaar ni ñu doy waar ñoom nit ku ñuul kawri nga ab jaam lay jàppe rek waaye bu ñu demee ba jébbalu ci moom ak di ko wax wax yu rëy ak li bind ci moom nga xam ak naari Uganda ni ñu doy waar ni ñu ni ñu sewee ni ñu xereñe ak ni ñu mën a xeebaatee ba loolu jeexee ñu yóbbu ko ci yéen jolof ne kon nag léegi dañ ko indi ci biir bokkam ko jege ñu toroxal la ku ko bëgg a dem nga ñaan autorisation titre ci nit ñi foofu itam gis ngeen la fa xew mu nekk fa 1900 1907 ba 1912 lu ne lu ne xew na rek bokk na ci li tax ñu yóbbu ko njaareem bi tubaab nekk ak wéetaay wa ak ña fa def erreur parce que seen tubaab mi ngeen bàyyi ci jolof jéemoon ngeen ko jël ngeen ko sànq jéem ko faagaagal yóbbu ko Gabon euh, réussir leen ci ngeen yóbbu ko Mauritanie réussir leen ci ngeen bàyyi ko ci àll Jolof bi mi ngi formé ay nit ñoo xam ne bis bu noppee ci ñoom ñoo koy gën a garaaw ndax lu nekkoon ci moom ci ak mbaax lu nekkoon ci aw xam-xam lu nekkoon fit dana ko def ci ñoom te ñoom am nañ Sëñ Tuubaa mu ñuy wéeru te moom amul Sëñ Tuubaa mu ñuy ah, bi muy nekk moom rek la woon kon kon yéen ngi def erreur te ñoo ñoo koy gën a garaawoon ndax dañ leen formé formation boo xam ne lu nekkoon ci moom def ci ñoom léegi lu ci xalaat lu ciy pexe mooy da ngeen ko yóbbu ci dëkku taax dëkku taax ba ngeen ko yóbbu ci dëkku taax léegi moom dëkku taax ba dana tax dootu am jot ba ni muy formé nit ñi dootu ko ko jot loolu yëpp dégg ngeen ko ay taw dama dama koy fàttalee rek loolu la ngeen dégg suñ bi duñu ñu naan raamu masiri ila jurbel la daal la chasin la waa yenoo sirrama fi sayri ma raamu ndax sëñ bi sëñ moom bokk fi lépp la xam te ab tubaab lañu yónni koo xam labbe la mu mel ne ab sàmm bu fay jëm déguisé wu ak ab naar buy buy sàmm nekk mi ngi seetlu ci yéen nag maa ngi wax ne fa nekk boobu rek nit ñi dukk dukkee nga xam ne ña ngay sàkket ña ngay bay ña ngay jàng ña ngay taalif ña ngay lu la ña koy def ña ngay sikkar ña ngay wérd moo xam ne ñii bu leen ci bàyyi fii ëllëg si biir dañu formé mbooloo moo xam ne ñoo koy gën a garaaw mu ne tubaab yi nag léegi da koy yóbbu ci dëkku taax bu ngeen koy yóbbu ci dëkku taax nag léegi dëkk ba dana am saxaar dana am marché dana am ay ay ay yëf yëfaan li may tudd ay xoy-xoy koy xëy yooyu mën na ko këf ba dootu am jot moom moom wéy na mën lañu ko dara waaye dootu xam xew gannaaw ak xam a war a seenu defaru ak seenu mat ak seenu euh, dal ak seenu xam ak seen seen sell kon nga xam ne kon kooku bis bu mu digle nag rek te te bii bis képp lañu ma sa dégg mu sàkku ci ndimbal waaw nañu ma ci sant la yàlla te sant yàlla ñëpp la war waaw ndax sant yàlla moom mooy li nga xam ne jaamu yàlla yëpp sant yàlla la waaw waaw ndax julli gi nga xam ne moo ci gën a koy sax sant sant yàlla la kon sant yàlla ñëpp la war te ci lañ mës a dégg Sëñ Tuubaa sàkku ndimbal kon bis bi koy def yaa ngi dimbali Sëñ Tuubaa yaa ngi def ndigalu Sëñ Tuubaa te te te te lu baax lu na jafe na baax na waaye def ko ci ndigal na moo ci gën a ti laa dafa am lu shay'an bi doone idni fal bu leen def dara def leen ko ci kaw ndigal ndax def dara ci kaw ndigal mooy tax nga nga nga la ngay def yàlla nangu ko kon bu ko defee bu ngeen def li ci kaw ndigal booy boo ñu am ci yaakaar yu kawe am ci xel mu dal te xam ne liggéey liggéeyalu Sëñ Tuubaa la Sëñ Fall daana ko def ci bi ñuy liggéey jumaa ji mu daan wax mbokk yi liggéey war ngeen sant yàlla ndax liggéey Sëñ Tuubaa bi ngeen nekk liggéey jumaa jumaa Tuubaa ndigalu Sëñ Tuubaa la làmbatuwu leen ko diw sax li mu ko defal lim rëy rëy da ko làmbatu waaye yéen nag làmbatuwu leen Sëñ Tuubaa ndax li ngeen def ndigalam la kon yéen itam li ngeen def wa ngi sant ci yàlla ba xam ne ndigalu Sëñ Tuubaa la ndigalu Sëñ Tuubaa na koy da nga war am xel mu dal wala am yaakaar ju dëgër ko defee ñu ñaan ñu yàgg jàmm sëriñ Cheikh ak njaboot gi di ko taxaw sëriñ Cheikh Thioro daan ko taxaw ci ndigal Cheikh Modou Fadal sëriñ Cheikh gannaaw bi ñu ko gisatul sëriñ Cheikh Dioral mi taam bu baax bi di ko taxaw ànd ak ko njaboot gépp taalibe yeeg mbokk yeeg uh, wëlëre yeeg am di jàmm yi ak bokki Jolof yëpp ak bokki Sénégal gépp kon ñu ñaan ñu àgg ci ak jàmm te yàlla def lañ ci yéene lépp yàlla defal ñu ko te tawfeex ci sëriñ Tuubaa amoon yàlla defal ñu ca fajug aajo bi rek bi di zaahir ak baatin ثامن عشر لخدمة المختار في شهر شبر